boo leen fàttalikoo bésub korité maanaam bes bésub julli Aïdel Kabir wala Aïdel Fitr moom Macky Sall yëkkati woon na ay kaddu woo ñi nga xamante ni ñoom ñooy force vive yi ñu ñëw booloo ci benn table toog waxtaan pencoo li nga xamante moom mooy kon soxlawu réew bu Sénégal Walf Quotidien ñëwaat ci tey jëlee ak coow bi nga xamante ne di ki dem ba léegi ñu ngi koy waxtaanee. Sall bi nga xamante ne dem na wala sax fas nee na rek dem. toog ci benn table ñu dialogué Walf Quotidien titre bi euh, wax ni dialogue politique Khalifa poussé euh, ci nga xam moom mooy euh, loxob Macky Sall ñu woon rek taarix wala sax maanaam ab nataal boo xamante ne njiitu réew Sénégal Macky Sall mu ngi rek daal di dox di ñëw ci kaw ci ki nga xamante ne moom mooy Khalifa Babacar Sall ba yéenikaay boo xamante ne wax na ko tey ne ci xëtu njëkk ci xëtam bu njëkk muy L'As Quotidien di wone encore une fois photo bi nga xamante ne daanaka Walf moom la wone gis nañu ne L'As Quotidien photo boobu la jëlaat wone waat muy dox jëm ci kaw Khalifa Sall wala Khalifa Sall di dox di jëm ci kaw euh, Macky Sall ngir rek euh, wone li nga xamante moom mooy euh, Khalifa Sall bi am yéene ngir topp Macky Sall ci li nga xamante ki ko ci dialogue politique maanaam waxtaan ak penco loolu nekk loo xamante ne ñu ngi koy waxtaanee jamono jile ci ku jege ñu bëri daal di ci yëkkati ay kàddu El Hadj Mansour mu mel ni waxtaan bi fi mu nekk nii ñu bari gis nañ ne peut-être mën nañu jàpp ne Khalifa Sall dina fekk njiitu réewu Sénégal Macky Sall waaw mais loolu du mbetteel Thiala parce que Khalifa Sall moo gën a tënku boo seetee par rapport ak ñi nekk ci opposition bi wala bokk xëy na ci ñi nga xam mën nañ leen xupp ñu am doole jàkkaarloo ak ñi nekk ci bopp réew mi nga xam ni xëy na nañu supporter opposant bu dëgër mënuñ jàpp ne Khalifa Sall xëy na moom la ci ay faiblesse am gën a feeñ ba nga xam ni wuy ji mënut a ñàkk et puis mu ngi am yaakaar itam comme yoon yoon euh, àddina àtte na ko ba noppi donc il faut mu espérer bul fàtte ne annoncé woon nañu fi amnistie donc amnistie mënoo ko am ci lu dul dialogue et Khalifa n'a jamais été sax nekk benn opposant bu bu bu radical xëy na bu nekkul ay discours ci waajtaayu élection yi ak yooyu muy dénoncer gestion bu Macky Sall mais musta nekk ku radical koo xam ni xëy na dina mën a bañ a dem ci opposition bi euh, ci euh, dialogue bi mais toujours nay bàyyi wala xel ay discours démbam ci opposition bi ba bu mu xotti charte yi nga xam ne moo ko bàyyi woon ak darajaam ji mu am ci biir opposition bi ak lu mu mën di wuy ji dialogue bi dafa am fu mu egg tey foo xamante tëmb ñoom ñoo ko soobee ñoo ko tàllal loxo muy opposition bi ak benn coalition boo xam ni jox nañ ko fa daraja joo xamante ni bi na fexe ba lu muy bëgg bëgg bëgg a dem wuy ji ci appelu dialogue bi nga xam ne Sénégal gépp ko soxla lu mu bëgg bëgg bëgg xëy na teg teggi li tegu ci koom jot xëy na amnistie mais na sóoraale ñi tëmb ñi ko suux euh, na koy na ko waxtaane ak ñoom saxtal ko ba nga xam ni dinañu xam ci gan anam bañ a topp ñu naan xëy na opposition bi sikki mi fastoon na fastoon na bu toppee euh, émotion boobu mun na dem ba indil ko leneen ci wàllu politique loo xam ni du lu gën te xalifa toujours dafa garder base politique am ak fu ak lu mën loo mën di dégg donc mun na dem wuy ji mais na tiniraale compte ñi fi mu nekkoon ba tee ko suux ba léegi muy opposition bi quoi euh, Alamine. nga yaakaar ne xalifa bu demee du daal di indi ab réeróo euh, digganteem ak ñi fare ci ku jéggi rawatina Yewwi Askan Wi daal di fa jaaree tas. donc moom laa lay wax noonu bu fekkente ni bi waxtaanee na ko ak ñoom pencoon na ko ak ñoom mun na bañ a na bañ a tas ci biir Yewwi Askan Wi de toute façon alliance ba moom. nekkatuñu ci benn benn yoon à cent pour cent parce que gis nañu ni mu fa demee woon ci bi ñuy génne Aminata Touré à l'Assemblée nationale waa wàllu dañu dem ñoom fayu seen diggante ak Aminata Touré sans ñu consulter waa yeewi askan yi xalifa nag moom yeewi askan bi la bokk donc bu fekkee dafay dem wuy ji dialogue te mu tënku ci benn coalition bu am ay charte bu fekkee coalition bi dafa wax ni ñoom du ñu bokk ci dialogue boobu bu demee dina xotti charte mais itam bu boobaa dinañu laaj coalition boobu lan moo tax doo leen dem wuy ji ci dialogue boobu parce que dialogue bi Euh, dafa arrangé ñëpp parce que daañu fa waxtaane yeneen dogal yu ñuy jël ci processus électoral bi nekk suñu kanam dafa am solo du dem pour négocier ji ak Macky Sall du dem pour waxtaane ji ak Macky Sall pour dem ba ëllëg doo mën a taxaw ci mbedd mi ni def nañu lii sama ginnaaw def nañu lii te neexuma mais da ngay am sa kàddu dangay am sa sa sa sa gis-gis ci li ñuy soppiwaat fii ak ñuy egg ci élection yi de ce fait boo defee sa proposition ñi gannaawal ko ëllëg di nga mën a wax ci pénc mi lii ñuy dogal ànduma ci woon te bokkoon naa ci dialogue bi mais nag ku fekkiwul ñu reer sa ginnaaw donc man euh, contre ma le fait Khalifa bëgg dem participer même bu fekkee de dem au nom de la coalition baax na mais euh, dina jàppandal la coalition mu bokk mais bu mu dem ci kaw muy réeroo ak waa coalition bi dans ce cas nag sénégalais yi ñooy interpeller coalition bi ni leen dem leen bokk ci dialogue bi mu andi ci coalition bi. moom laa la wax bu demee te consulté wu leen ñu dëppoo ci ay charte mu am lu mu indi ci coalition bi. loolu moom mooy téeméeri dëkk mais moment la boo xam ni euh, bu ko neexee mu dem parce que Déthié Fall de déclaré na candidature am parce que bul fàtte ni coalition bi dafa amoon benn objectif muy participer ci élection locale ak élection législative ci seen biir charte yi dañu waxoon ni bu ñu eggee ci élection présidentielle ku bëgg dem mën nga demal sa bopp loolu moo nekkoon ci charte coalition Yewwi Askan Wi donc Khalifa ak lu mu bëgg-bëgg ñu sauver coalition bi aussi coalition bi nekkatul lu mën a empêcher bu fekkee gis na ni participation ci élection yi moo gën ci moom c'est ça mun na bokk ci élection yi. ñeneen ñi coalition bi c'est ça. Euh, présidentielle bi tënkatu leen. leen ci biir coalition bi. c'est ça parce que euh, dañuy fàttali également ni au au delà de coalition Yewwi amoon na intercoalition. moom mhm. moo dem ci élection législative yi. ba ñu am lu ñu am fële ci assemblée nationale. mais ba ñu demee assemblée nationale lan la ñu gis. Mhm. mooy ni wallu dafa dem féete boppam euh, yore groupe parlementaire boppam. Mhm. le cas de wàllu par exemple euh, ku ci mel ni Abdou Bara Dolly Mbacké euh, nekk vice président groupe parlementaire. bu libéral liberté démocratie ñoom nee nañu. ñu dem wuy ji euh, nekk na lu baax te xam nga maa ngi koy wax sànq ci tubaab ak alamin mm-hmm. mm-hmm. euh, Mansour di ko di ko di ko dëggal mooy nii la nga bëgg soppi ci biir code électoral wala lu ñuy demee ci élection yi mm-hmm. léegi nga ko mën a def et c'est forcément autour d'une négociation wala d'un dialogue wala d'une discussion parce que euh, mbirum euh, parrainage bi je pense que Alamine dina si dellu si parce que mhm. tey sax par exemple anniversaire la ci wàllu parrainage boobu mhm. li tax ma koy wax mooy ni euh, ci éphéméride du Sénégal ñu ngi mhm. xam ne ni tey jii di maanaam ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril ci la cour de justice bu CEDEAO en 2021 newoon état du Sénégal ordre la ko joxoon ne ko na supprimer la loi sur le parrainage parrainage boobu indi na coow ci biir euh, coalition yi ci biir euh, opposition mm-hmm. ak ak yu ni mel mais c'est le moment opportun et idéal de discuter de de cette loi sur le, le parrainage oui. est-ce que dañuy tënku ci charte bu CEDEAO bi nga xam ne cour de justice dafa ne nañ ko dindi euh, loolu nag mënoo toog ci télévision wala mm-hmm. ci plateau di ko fa wax la nga mën mooy toog ca ña koy décider. Mm-hmm. di maanaam ministre de l'intérieur ci euh, njiitalul peut-être président de la république pour xool nan la def ba harmoniser mais il faut le faire comme je le disais tout à mm-hmm. l'heure en français très rapidement parce que fii léegi bu ñu demee ba dugg six mois avant la présidentielle de 2024 amul lenn looy mën a soppeeti. ci euh, lii di loi électorale wala code électoral. bu ñu voilà mu nga ko soxna Thialla ñu wéyal ba tey ba keneen euh, yéeni boo xamante ni wax na ci tey jile muy bés bi le jour dañ koy daal di brosse rek daal di dem ak titre bi nga xamante ni def na ko bés bi le jour journalu immédiat nee na daal euh, jëm ci wàllum euh, bokk kii di Khalifa Ababacar Sall ci dialogue bi le maanaam waxtaan bi le Khalifa mu ngi dox di raam ndànk-ndànk jëm ci njiit réewu Sénégal la Macky Sall wax ci beneen ponk ci li nga xam ne moom mooy yéeni bi dafa bi yor wàllu maanaam jawrinu jawrin yi kii di Amadou Ba euh, jàpp euh, wax ci li nga xam ne moom moo jëm euh, ci wàllum campagne agricole bi ñuy waajal atum 2022 2023 muy wala sax 2023 2024 muy loo xamante ne nag lu am solo la ñu jël ci fukk ak juróom-ñeent ay dogal yu yoo xamante ne dañoo ñëw rek ngir daal di gunge euh, li nga xam ne moom mooy boobu lépp secteur beneen yéenekaay boo tamit wax na ci muy enquête moom wax ci li nga xam ne moom mooy euh, chantier bi ñu war a euh, taxawal ngir rek daal di jëm ci li ñuy duppee bay dundee ci biir réew bu Sénégal muy loo xamante ne njiitu réew Sénégal Macky Sall yàgg na ko sàkku bu ñu fàttali ko fan yële ñu yees defoon nañu fi ab forum boo xamante ne dafay jëm ci wàllum agriculture Alaj Mansour encore une fois ñu gis njiitu réew Sénégal Macky Sall mu nar a génnee lu toll ni bu takku takku maanaam toll ci téeméeri milliards ci suñu ay di jàppale ko li nga xam ne mooy euh, secteur agricole ndax jàpp nga ne loolu mën na tax ba ñu daal di yegg ci li nga xam ne moom mooy autosuffisance alimentaire. mais bien sûr bu fekkee am nañu am nañu yéene ji mën na nekk euh, bu ñu xoolee li mu dalloo ci ay jumtukaay fan yële bu ñu ko séddalee séddale bu aw yoon. Euh, Lamine Sénégal musta génn benn yoon ci espace bu ko war a mën a permettre mu am li mu soxla ci wàllu dund mais euh, bëlëf bi mu bëri xam nga autosuffisance alimentaire bu ñu koy wax mooy Birahim Touré bay ci mbayam dina am lu mu dunde ren ba déwén càlla dina am lu mu dunde ren ba déwén mais Sénégal yoon bi mu ko bëgg a jaar de façon euh, globale ñu ni Sénégal am na ci quantité céréale lu mu mën a dunde ren ba déwén c'est-à-dire egguñu foofu parce que ñu li ñu amoon ko néew ci ay outils pour départ muy comme comme euh, dag yi muy domaine agricole communautaire yi nga xam ne créé woon nañu ko dafa jàngal xale yi ñuy bay espace bu yaatu ci wàllu céréales di def agriculture élevage ak pisciculture dag yi mujjul fenn yëpp ay nelaw benn doxu ci malgré xaalis bu sakkan bi ñu ci def euh, bu fekkee de façon globale nguur gi noppeegul ci wàllu espace parce que loolu dafa am direction bu koy gérer buy recruter euh, boo xam dafay aména def aménagement benn euh, après aménagement mu am direction buy saytu li ñu war a bay ñaata junni hectares la ñu war a bay machine yi disponible na techniquement am ay chef de service yoo xam ñooy contrôler loolu mu nekk récolte bu gouvernement bi donc nga xam dina am benn stock bu ko permettre mu collaborer directement ak les commerçants ban céréales lay gën a ciblé ceeb lay doon dugub lay doon mboq lay doon bele lay doon loolu ñoom xam nañu ko mais bu dul loolu li ñu bëgg a wax autosuffisance alimentaire loolu euh, ci maam ba léegi def fi musa nekk à part que fan yi euh, at yu mujj yi nga xam ni béykat yi sawaratuñu parce que ñi ëpp ci ñoom jaay nañu seen suuf amatuñu espace bi ñu béy mais kaw gi loolu moom loolu loolu moo fi mus a nekk nangu nañu seen suuf nangu nañu seen suuf hmm. loolu moom mos sa nekk ci kaw gi béykat dañ doon bay di am lu ñu dundee ren ba déwén mais de façon globale pour autosuffisance alimentaire hmm. Sénégal noppeegul pour yegg fa 2017 la joxe woon détain 2017 2017 ak 2023 ñaata at la <laughs> daanaka juróom at ba léegi boo seetee production 2016 production 2000 moo moo gën bu bu 2022 production 2016 veyu at mi Macky Sall joxe woon deadline production boobu moo gën production 2022 kon demuñu kanam dañu dellu gannaaw donc noppee guñu pour egg fa mais nag li mu li mu inauguré li mu inauguré ci ay matériel agricole at mii moom président Macky Sall hmm. bu ñu ko awalee fi ñu ko war a jaarale li ñu bëgg mën nañu ko am. en tout est-ce que nañu ko awale a jaarale. balaa loolu mooy question bi. balaa ñuy jàll boobu le euh, xaalis bi ñu génnee koppar bi tàkku na euh, ragal rek ñu daal di koy euh, wala mu daal di mel ni 29 milliards Prodac yi coow li jóg ci. Hmm. ak mu ñàkk dem fi nga xamante ne foofu la war a dem. c'est ça c'est ça te dafa am benn aspect bu important. ñu ko doon. coow yenn ah, jamono ñu koy ziar moom euh, Moustapha Cissé Lo yàgg na wax na ni bàyyi leen di jël jiw ji di ko jox ñoo xamee ni seen yoon newul ci mbay mi Euh, ñu jël benn Birahim Touré nga xamee ni amul sax euh, benn hectare tool jël jox ko loo xamee ni. Euh, mën na jàppale Mansour. mën na ba jàppale keneen mën na jàppale keneen koo xamee ni ñooñu dañoo yore justement li ñuy Mansour doon wax ñu yore seen i ferme seen i champs yoo xamee ni ci la ñuy dund di ci dundal seen njaboot di ci sax jaay ci biir dëkk bi. Mhm. loolu yëpp ñu jël ko jox ko benn nit wala ñaari nit mu am benn xeetu séddale bukki ci. Euh, euh, engrais yooyu ak ci wàllug jiw ji loolu je pense que ni ko Moustapha si loo doon waxee euh, na ci nit ñi bàyyi xel bu baax a baax je pense que bon déjà le ministre de l'agriculture euh, di Aly Ngouille Ndiaye xam na wàllu mbay parce que moom ci hmm. boppam il baykat la euh, ba mu nekkatul ci nguur nekk ci ay euh, mbiru boppam ñu ngi koy gis ci ay toolam mu yore ay toolam di ci di ci def kémte lay kàttanam kon moom xam na li baykat di dund ak li baykat di soxla donc espoir la ñuy mën a am ci wàll woowu mais du tee ñuy fàttali nit ñi ni am na loo xamee ni nit ñi waruñu ko sax seetaan et surtout nguur gi waru ko seetaan ci ci lu jëm ci séddaleem engrais bi mais même mécanisation agriculture boobu. Mm-hmm. ñu nga jël benn tracteur boo xam ne jox ko benn Birahim Touré nga xam ne ni euh, benn 200 mètres la yore di ci bay alors que booba jamono Mansour Diop a ngi yore ñaari hectares soxla boobu la tracteur. pour mën a euh, mbayam gën a gën a njog mais sa aussi ça pose problème. te Aliou Ndiaye li tax ma ma gën a am ci moom yaakaar mooy au moins. xam gi mu xam mbay tax na. ci mm-hmm. déclaration mu am honnêteté ni production ren bi baaxul. donc comme baaxul nu ñuy waajale année prochaine pour production bu baax Aliou Ngouille Ndiaye da nga xam techniquement xam na mbay dul non seulement lu mu jàng mais daf ko pratiquer wax la ban gerte la ñu war a am fu ñu koy utijee parce que gerte bi durée bi bu ko amee dina ñor dina mën a arranger baykat bi mais mosuñu am ministre de l'agriculture bu mel noonu Sénégal par exemple ñi fi nekkoon ñëpp dañuy ñëw ci kanam chef de l'état ni ko production baax na bu ren bii moo gën bu daaw bi professeur Balla Moussa Moussa bi mu fi remplacé hmm. mais da doon def ay annonce chiffre provisoire yoo xam ni bu gerte gi tóor tóor mu ngi commencé di estimer lan la ñuy produire te loolu mënul nekk mënul nekk bu defee boo defee ren ji ku de képp ku defoon xayma da ngay daanu euh, honnêteté boobu nag moo tax ñu am yaakaar ci ni comme xam na ni doxul boo nangoo ni doxul di nga xam fan ngay tegaat sa tànk pour man mu dox mais yeneen ministères yi fi nekkoon ñëw taxaw ci kanamu nit ñi daan béykat yi bay mbay mi dox na production bi baax comme Sonacos mais Sonacos ba léegi Sonacos moo amul njëriñ ci ñu koy tudd di tudd agriculture u Sénégal Sonacos jëndul quantité dimbaliwul baykat kenn xamul tànk bu muy feccee ñoom daal bu jënd gerte jotee muy xëc ñuy xëccoo OPS ak chinois yi te du ñu jënd quantité bu doy seen unité yi jagul te boo waxee seen directeur nekk fële di la tontu Sonacos ni ñu ko xamee woon ak ni muy dunda léegi moo safaanoo jamono séddale jiw bii nii xam nga Sonacos ñu doon def dañ doon ci dem ci région yi Thiala tànn fa ay grands producteurs ñu ni Birahim Touré yow yaa dëkk région bu Thiès demal département bu Mbour bu Tivaouane ak bu Thiès nga xool fa les grands producteurs grand grands yooyu ñoom ñoo xam baykat yi nekk ci zone boobu ñu ñëw bind leen ni leen dañuy joxe jiwu képp ku bëgg fukki bërigo bërigo bi dañ koy jaay ñeenti junni da ngay joxe avance 10 mille francs ñu dajale sa 100 000 francs pour jox la fukki bërigo loolu noonu la Sonacos doon doxee li ma lay wax nii baykat yi mag yépp xam nañu euh, rôle bi grand producteur doon taxawee ay jamono mais bi fi kii nekkee est-ce que xam na sax dossier boobu aywa enquête mu ngoog euh, comme ni nga ko waxee soxna Thialla foofu la ñuy daal di dem jeexalee ak li nga xam mooy tàggat yaram l'observateur ñëwaat na ci euh, préparatif bu fête euh, première mai bi dañ ci ñëwaat incha allah altine ndax ci lay lay daal feetu li nga xam ne mooy première mai bi dañ ci ñëwaat incha allah waaye nag ci wàllum tàggat yaram moom la def ci xëttu njëkku yéeni kaayam Abdou Diallo doomu réew Sénégal bi li nga xamante ne mu ngi nekk foofu li ca diwaan bu France Ligue 1 nekk ca Strasbourg jamono ji mu fay def ay jéego yu am solo koy daal di ñaanal mu wéyee loolu indi ndaw yi nga xamante seen at yéegagul euh, fukki at juróom ñaar ñu ngi koy waajal daanaka tey lañ koy dóor ca diwaan bu Algérie euh, réew bi nga xam moom moo ko dalal waaye nag nga xam moom mooy coach équipe nationale bu Sénégal moom wax na euh, Serigne Saliou Dia daal dañoo war gën a am taxaw taxawaay euh, ngir li nga xam moom mooy raaya bi ñu mën ko indi ci biir réew bu Sénégal ñu fàttali national bu Sénégal euh, euh, dina mën a tax wala loo xamante ne dina war a tax mën a tax ba ñoom équipe nationale bu Sénégal ñu gis failles fan la nekk ba mën ko rectifier ñu fàttali Sénégal suba lay dóor li nga xam moom mooy boobu ci ñëwaat incha allah ci yaatal ci beneen. Lamine dinañ ci ñëwaat Lamine waaw suba lay door waxal door suba lay door. door ak dóor du benn sama xarit bi la toppee la na la de dóor mooy chaque mu jox la benn. bokkul ak door. ne ah, suba lay door waaw kay waaw kon kon kon problème nag day daw. Eh, du suba lay door tey lay door ba. <laughs> merci Lamine ñu ngi lay jaajëfal bàyyi la nga ñëw toog ñu ànd ak euh, waa régie vite ñëw ci euh, lu soxal wàllum au secours ànd ci ak euh, Biram Ndaw tey ñu nar a waxtaanee Croix-Rouge.

fàttali leen ni euh, Khafor euh, Touré jiite CHESIS mooy suñu gan tey ñu nar a waxtaanee moom euh, tolluwaayu réew mi ak actualité ci kanam tuuti dina teew Biram Ndaw mi ngi fi ñuy waxtaanee tey Croix-Rouge Biram bàyyi la nga nuyoo d'abord. yi nga xamante ne ñoo ngi suivre depuis sept heures la nuyu naka suba si euh, nga taal sa micro. suba saa ngi ñu ngi sant bu baax a baax waaw kon waa régie xam naa dinañu ma reetaan tuuti parce que micro bi dafa fayoon voilà donc ñun ñii ñëpp rek encore une fois voilà comme ni nga waxee léegi léegi caalaa. doxantu am na sax koo demoon seeti. voilà donc am na ko ñu seeti woon koo xamante ne bii tey euh, daanaka nekk na koo xamante ni dafay faral di sauver ay nit ci géej gi surtout plage bu Lac Rose tey euh, a jublu ci weeru ko mai te ku mm. yu bëree bëri dañuy faral di def euh, composition examen wala ay nekk ci essai yi te la plupart buñ ci paree dañuy bëgg di dem ci géej gi di féexlu ci. Mm. loolu nag dafay indi ay danger yu bëree bëri déjà dimanche passé am na lu xewoon Lac Rose loo xamante ne bii maara taali buñ ci jugul woon dina am fu mu mujj élément bu fekkee yem na xëy na moom la ñuy dem xool ko nga xamante ni bi rek quelques secondes la ñu mën a def benn introduction soog a mën a ñëw ci suñu waxtaan ci suñu rubrique au secours. géej gi li fi li fi lab ci xale bari na li fi lab si xale bari na dimanche bi passé man dama dem doon fa sauver ay nit encore parce que yàgg naa fa commencé depuis koor ga ba di fa di fa sauver nit dimanche passé rek trois personnes trois ñetti xale sauver naa leen fa kenn ki plan jaxaay la dëkk kenn ki bambiloor kenn ki kenn kenn kenn ki kenn ki ñàgg si si booru école bi si booru si booru si booru terrain bi waa léegi dama bëgg doon dama doon proposé comme ni ma koy waxee rek xam naa du ma si sonn nag duma ma si tay nu jël suñu matuwaay géej gi li fi li fi lab si xale bari na li fi lab si xale bari na dimanche bi passé man dama dem doon fa sauver ay nit encore parce que yàgg naa fa commencé depuis koor ba léegi maa ngi fay dem di fa di fa sauver ay nit dimanche passé rek trois personnes trois ñetti xale sawe naa leen fa kenn ki plan jaxaay la dëkk kenn ki bambiloor kenn ki kenn kenn kenn ki kenn ki ñàgg si si booru école bi si booru si booru si booru terrain bi waa léegi dama bëgg doon dama doon proposé comme ni ma koy waxee rek xam naa du ma si sonn nag du ma si tàyyi mu jël suñu matuwaay géej gi mi euh, biram kooku nga demoon euh, seeti jëm ci wàllum courage ni nga ko waxee jamono ji nga xam ne xale yi euh, dañuy wutali géej gi pour peexlu mën nañu wax loolu ndax période tàngaay la ñuy nekk voilà effectivement donc moom mooy li nga xamante ne bi tey jot nañ ko am comme élément bi ngeen suivre kooku mooy El Hadj Mbaye moom day faral di sauver ay ay xale ci wala ay nit sax ñi nga xamante ne ñooy dem di sangu ji ci plage bu Lac Rose donc tey li ñuy focus moom mooy ci wàllu croix ñoom tamit am na jéego yoo xamante ne bi dañu koy def par rapport ak loolu noonu bu bi ak yenn liggéey yoo xamante ne bi dañ fay dem di secourir nit ñi mais plage yi aussi ñoom ñu ngi fa déjà li may wax ak yow nii am na benn mission bu am boo xamante bi ñu ngi au niveau du euh, Lac Rose ci plage bi war fa amal benn camp euh, boo xamante ni bi rek une semaine la war a doon pour dimbali ñi nga xamante ni bi rek daanaka ñoom ñoo faral di sangu ci géej gi euh, bu ñu xoolee nag nekk na zone boo xamante ne bi tey dañu ko tere dañu ko tere mais n'empêche ñii di élèves yi ni ma ko waxee sànq bu ñu jógee ci composition yi examen yi ak seen yeneen faral di concours yi dañuy faral di dem ci plage boobu daaw rek gis nañ fi benn jéye bu doy waar boo xamante ne bi tey nemeeku nañu ko muy lu toll ci neuf élèves yoo xamante ne bi dañoo pare euh, seen brevet dem di sangu far yàlla ñu mujj fa ñàkk seen bakkan donc mu nekk mbir moo xamante ne bi tey nekk na lu euh, jéggi dayoo tax waa ñoom tamit ñu ngi ci ay def ay jéego waa croix nag ñoom ñu ngi ci ay jéego démb contacté naa ñoom nee nañu euh, lu ñu ci def it loo xamante ne bi dafa soxal seen i sauvetage pour que dimbali ñi nga xamante ne bi rek ñoo fay faral di dem di sangu waaye ñoom am nañu aussi secours bu ñuy laaj personnellement boo xamante bi rek dina mën a tax ñu gën mën a doxal seen liggéey bokk na ci am ay moyens ay moyens lu ci mel ni oto boo xamante bi tey eh, du leen arrangé wante aussi ay matériel de sauvetage nee nañu soxla nañu ko parce lépp loo xamante bi tey dañ koy utiliser pour mën a sauver eh, doomu aadama yi ñoom ñoo koy cotiser seen biir te nekk na loo xamante bi xëy na war nañ ci mën a taxaw taxaw ñoom nag ñu ngay dànqaafu peut ñi nga xamante bi ñoom ñoo di kilifa yi surtout autorités municipales yi nekk ci niveau de la commune de Tivaouane Bambilor ak Sangalkam surtout au niveau du département de Rufisque ñu mën leen a gën a dimbali renforcer seen i équipement ndaxte ñoom tamit euh, dañu faral di yittewoo loolu te bu ñu seetloo euh, bu jëye amee sapeur pompier parfois mu tardé ñëw wala mu sori fi muy jóge pour ñëw mën a sauver donc ñoom la fois passée dinañ joxe numéro ñoo xamante ne bii tey bu ñu soxlawee euh, par exemple contacter waa Croix-Rouge mën nañ leen contacter au niveau euh, à travers donc ce numéro muy 77 524 70 39 ñu bamtu ko muy 77 524 70 39 nga mën a jot waa Croix-Rouge au niveau local ci diwaanu Lac Rose wante du jeexal te fàttaliwuñu ñi nga xamante ne bii rek ñoom ñooy di élèves yi surtout ñi faral di dem ci période bi ci plage yi ni am na ay plage yoo xamante ne bii tey dañ ko tere euh, national Dakar rek xool quelques plages yoo xamante ne bi mën nañ ko lim bokk na ci institut Pasteur bokk na ci plage bu Lat Dior jàkkaarloo ak palais de justice Soumbédioune université euh, Mermoz Mamel Almadi le virage Hann Parcelles Assainies unité mhm. ak wax nañ aussi ne plage bu Guédiawaye Malika Rufisque surtout plage bu mhm. euh, Cap des Biches plage de Mbao euh, bu nekk ca Jokkul Kaw ak itam plage bu Bargny surtout surtout plage bu mhm. Lac Rose nga xamante bi tey élèves yi dañu fi bare bari ci àlalum Ibrahima mu nekk lu am solo ndax euh, ñi nga xam ne ñoo di xale yi dañuy faral di dem géej surtout période bi ak euh, tàngaay bi te comme li mu wax am na ci plage yoo xam ne dañ koy tere mais at mu dañuy gis ne ñi ñi ciy loru ci géej gi dafay bëri. waaw mais je pense que euh, ci wàll woowu am na ci benn responsabilité d'abord bu parents yi société bi ñi nga xam ne ñoom ñooy wër xale yooyu ak ñi leen war a wottandiku aar leen. Mm-hmm. am beneen responsabilité ci état bu Sénégal su ma waxee état bu Sénégal mooy euh, tey Euh, fu ci mel ni ministre de l' intérieur bi nga xam ne yooyu lay sax ay plages mm. interdites à la baignade ak yu ñu autorisé ñoom ñoo mm. koy génne euh, gouverneur bu Dakar euh, bu dee ci mm. wàllu Dakar ak yeneen gouverneur ci yenn régions yi nga xam ne am na ay géej ñooñu ku ci nekk am nga sañ-sañu woo ñi nga xam ni ñoom ñooy mm-hmm. takk der yi pour justement sécuriser ces plages mm-hmm. am na par exemple brigade boo xam ne ci gendarmerie ñoom loolu mooy seen seen wàll yore sax ay yenn jumtuwaay yu ci mel ni am nañu yore ay fas mm-hmm. Euh, ay li ñu wooyee seen moto carte yooyu nga xamante ni dañ koy day mën a jàll ci ci plage yi ñooñu mm-hmm. tamit war nañu yokk lii di surveillance yi ci plage interdite à la mm-hmm. euh, mais xam naa ni loolu tamit war na doon benn sujet mm-hmm. mooy ñii ñuy woowee ay euh, maître nageur conditions yu nekk yenn saa baaxul wala neexul ba même plage yi nga xamee dañu dañu ko permettre nit ñi mën fa sangook yooyu peut-être li fay nekk bariwul Euh, lañ leen di fay peut-être néew na euh, loolu tamit euh, faw xam naa ñu am ci ab jàngat waaye li wóor ma nii état du Sénégal na jël ay responsabilités ci wàll boobu ndax neexul dégg ñu ne xale nangam am fukki at ak ñeent wala mu ngi doog a am befem wala mu ngi doog a am bagam daanaka nekkoon yaakaar ci njabootam nga xëy ñu ne la dafa demoon sangu ji ci plage interdite yooyu te seen parents yi duñ leen yëg c'est ça problème aussi bon lu am solo la. Mhm. mais euh, message bi nga xam ni parce que xale bu xësee am yàlla ci boppam moom mi bind nit. Mhm. daf ne xale bu amee juróom-ñaari at nañ ko digal mu julli eggee fukki at nañ ko duma pour mu julli c'est-à-dire kon xale bu am 15 ba 17 ans jëm 20 ans dégg na conseil ñoom la ñuy waxal xale yi les jeunes euh, xanaa dinañu déglu benn tonton bu taxaw seen kanam. Mhm. nit ko du fowee ba kanam nit ko du fowee dundam. nit ku ñu woo ëllëg ba mu nekk responsable ci yéen am na ay ministre am na ay député ci yéen am na ay DG ci yéen kenn ku nekk am na xememtee fu doon keneen ëllëg quelqu'un koo xam ni euh, dina tekki donc kooku euh, xale boobu la ñuy waxal di ko ñaax pour boo demee géej bul jaay affaire zoro bul jaay affaire ngand ngandalu <laughs> mais mais jaru ko jaru ko parce que ku dee da ngay perte te li gën a doy waar dafa mel ni euh, groupe xale boo gis ñi ci ñi ci gën a nekk ay crème ñooñu la géej gi di gën a yàpp en général boo seetee groupe bu nekk ah, ci xale yi ñuy gën a bruyant à l'école ñuy gën a fës euh, parce que constat la boo xam ne dañ ko def. Mhm. ci ñi nga xam ne xam nga leen ñuy lab chaque année ci géej gi. Mhm. donc bu ngeen dee dem géej na ngeen sóoraale fi ngeen di dem. Mhm. mën ngeen dem ba géej ba ñëw tëddoo leen sax sangu. bu ngeen dee sangu place bi dañ ko aaye parce que dafa dafa dafa dangereux. bu leen sangu ci place boobu nit moo mën a sauver dundam nit moo mën a jàppale boppam. nit moo mën a fexe ba du. fowe ak bakkanam mhm. donc yéen ay mag ngeen boo xasee am 15 ans mhm. mag nga responsable nga bul mhm. fowee su dund bul fowee sa bakkan ñaax googu ak ñiy def secours lu ñu nekk nekk jàmbaar mais magum jëm buy dem géej aussi xëy na xale la mais bu ñu ko ñaaxee dina xaw a am tuuti lu mu tiit kenn ku nekk ci xel xale yi defal sa bopp ci ni man liste buy dem déwén laa bokk bu neexee dogalu yàlla euh, maanaam duma def ci géej gi vacances yaa ngi ñëw duma def ci géej gi wala ma egg foo xam ne biir na ma ni dootuma assurance ci sama dund ba leneen di ma ci dal donc jël leen seen ay motuwaay pour assurer seen fekke déwén selon seen action yi nga xam ni moom ngeen di def ci vacances yi ci jamono yi géej ngeen bañ bañ fooy seen mais leneen <laughs> uh-huh. euh, yaa ngi tudd sànq ci lu jëm ci wàllug alxuraan ci lu jëm ci wàllug euh, la ñuy jàngal xale uh-huh. euh, yar kook yooyu ci wàllu julli uh-huh. mais parent yi également ku ci mën na yóbbu doomam ci jàng nap feey Euh, jàng arts martiaux jàng euh, yenn yoo xamee ni euh, àla kuliyal peut-être di nga am situation booy tombé même ci plage autorisé boo xamee ni peut-être jàng ba nga jàngoon tuuti fay dina la mën a sauver ndax am na jamono ji yu ñu toll ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ daan jàng war fas wala jàng léegi comme ci jàngum oto la ñu ne waaye au au delà jàngum oto nañu dugal suñ doom ci wàlluk sport ci wàlluk mhm. fee ci mhm. wàllug ay arts ci mhm. wàllug weneen ak yeneen mhm. euh, te bañ a jàpp rek ni football ndax donte football nag am na xaalis ci ñenn ñi ci ñi ko mën man waaw naa leeral du ci ñëpp la am <laughs> xaalis jàngi leen yooyu daal <laughs> wala ñuy dugal ci suñu doom ba tàmbalee ko ci man nag <laughs> ndax ñun ñi suñuy suñuy waajur dugal nañu ci ay arts martiaux ay yeneen ba ñu am ci euh, liñ naan peut-être les rudiments wala base yi mais ñu nag yenn saa ñun ñooy xaw a fàtte suñu njaboot ñun Euh, surtout génération bi parce que mm. bon situation bi amatu leen jot bi nag léegi dafa changé talatu leen ko mi ngi noonu. biram ñu bàyyi la nga mhm. jeexal vite fait. Euh, mhm. bamtuwaat numéro bi également. waaw numéro bi bamtuwaat ko rek ne ku bëgg a contacter croix rouge locale mooy au niveau du Lac Rose. di nga mhm. mën a composer le 77. 524 70 39 77 524 70 39 wante peut-être dinaa lancer benn message mais. au niveau des autorités. des autorités locales yi parce que euh, gis nañu ne daaw bi fa élèves yi labee euh, am na benn décret wala benn arrêté boo xamante ne bi dañ ko signé woon mhm. signé woon nañu ko ne dañuy tere lépp loo xamante ne tey euh, bañaat la au niveau du Lac Rose mhm.